waaw ba su tey bi ñi ngi ñi ngi ñi sant yàlla bi mu ñu dajalee ñun waa Revoca mu nekk benn initiative boo xam ne COS M23 moo ko jëloon mais tegoon ko ci loxo ay ay ay ndawam mu nekk initiative boo xam ne doone def leen mais da ngay bàyyi ndaw yooyu jël seen i ay responsabilité ni ñuy def nga gunge leen ci ci kaw loolu le de l' organisation de la COS M23 euh, mais surtout

Euh, docteur yaa fi sociologue yaa fi euh, bàjjenu gox yaa fi ñun ñep ñu réfléchir ensemble parce que ñun ñep gis nañ coronavirus euh, li mu indi ci réew mi ñu bañ ko ñu nang ko impact social psychologique mais impact économique bi surtout sanitaire aussi parce que nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi fièvre. man mi wax ak yéen tëdd naa hôpital lu ëpp ñaar fukki fan donc lolo sabab ñu indi courriel bi tek ko en place Euh, ba pare am ci ay jàngat yu ñu ci am ndaxte ndaw yi ñoo jël seen i ay responsabilité ça c'est un élément à souligner beneen bi mooy euh, du mbirum politique c'est c'est de la société civile c'est de l'engagement citoyen c'est de l'engagement communautaire bi ci des mooy euh, kenn joxuñu dërëm bi président jàppee ne war na woon nit ñi te lu mu waroon def la yalla deful won ñu bokku ci mais donté woowul won COS M23 wala en tout cas bobu revocable amul gul ñun dañ japp né pour defar Sénégal soxlawul ngay xaar ku lay woo ndaxte ay jamono ki di nday revocable di COS M23 xaarul won ku ko wo ken joxu ko won da nan gor gor wut ay moyens di def ay activités té ken sant ko ko donc boudé da nga né da ngay prétendre dimbali Sénégalais sur des euh, thématiques portant sur la démocratie droits humains transparence mais buñ la né am nañuy ñuy foog naa loo yoroon rek di ko xeeb pour def ko ci ci nga mën a gën a mën a fësal sa patriotisme mooy wut sa as tuut loo xam. nga def ko ci pour ñu mën a sàmm dund askan wi euh, euh, Sénégal yi parce que dara gënu fee cher dund donc looloo tax ñoom ñu jël seen ay initiative ñoom Alioune ci nag ñoom Dior Ndiaye ak Amou Tidiane woon xam nga euh, waa waa acteurs yi nga xamante ñi ngi nekk ci collectivité éducative yi nga xam ne ñooy gunge xale yi ñoom ñëpp nekk ay volontaires ñu bëgg fii ak ci kamanam ñu am lu mel ni un million de volontaires nga xam ne saa yu Sénégal soxlaa maara day taal yàlla bu mu nekk ci feebar yàlla bu mu nekk ay mais ñu mën a jël suñu doole tamit defal ko suñu dee parce que bëgguñu ne xeexal Sénégal des fois ci la bokk mais yemut ci euh, ndaw yi amu leen liggéey génn leen taal non non ndaw yi am geen doole am ngeen wër. lan ngeen di defal seen rew donc ñi ñoo jël initiative bi nañ ko jëlé woon ñun bañuy ñuy génn M23 bu mag ba def kos M23 dañ ne ay jeune war nañu mëna jël initiative kenn waru leen dicté nañ ko tek nak ci ay valeurs yu ñuy incarné nañ ko tek ci ay pas-pas nañ ko tek ci dëgg ndax ndaxte Sénégal mo ñu tax a jug jarul xuloo jarul xeex donc loolooy sababu bés bi di bëss bu am solo parce que dégg nañ xiro beeg ngaayo bi ci rew mi te xeyna na ñak donte gënalu ñu parce que rew lool la nous sommes en démocratie ñi ñi ngi xëccoo bëss bi ñi ñi ngi xëccoo tur bi ñun ñu ne nañ xëccoo valeurs

yaa ñu mag mais ñoom ñoo jël initiative ñu appuyé leen am wax dëgg yàlla xayma nañ ko tey jàpp nañ ne amal na njëriñ Sénégal te rewul nag saa ñu am parce que ay rendez vous am na fi nañ ko assumé surtout nag la jëm ci cos M23 mënul ñàkk ne M23 bés bu ñu waree taxaw ci ay principe avec responsabilité et fermeté dañ ko def mais tay jii wax deug yalla bésu def bilan la bésu perspective la bésu joxe modèle la bésu ubbeeku la xool nu ñu yaatalee révocable inshallah justement ci bilan boobu non lan ngeen ko jàngatee yéen waaw bilan bi dafa dafa dafa bëri ay ay ay solo waxna len bu ci ñëk moy xalé yi jël initiative. parce que tay ñi ils sont plus de 70% de moins de 35 ans mais fi ci kanam dañ fi gëna a bëri cooli ñom ñoy yëri réew mi parce que dafa am benn borom xam-xam bu ne le pain mis à part, le plus grand besoin d'un peuple c'est l'éducation waaw dañ ko soxla ci ñu am euh, pas-pas ci ñu bëgg seen réew ci ñu ñu ñemee xeex mais ci ñu mëna a joxe seen bop donc exemple bilan li ci njëkk moy ay xalé jël nañ seen initiative nek ci yeneeni i mais biñu waré waree ñëw xeexal Sénégal lool tamit modèle la ñu japp né lool bilan bu baax la benen bi ci dess moy yalla dafa def fan yi ñu xey am ben organisation euh, privée euh, ben ONG bo xamné dafa wara a liggéey ci nu mu tudd vaccination bi né dafa bëgg liggéey ak ñun ñu ne alhamdulilah mais bo ba légui suñ borom suturaal nañu lepp ni ñuy joxé bu ki honorable député indi otom ñom alinti joxé 50000 ñun la ñu am par weer bu dé ñu cotiser ñeneen ñi def seen doolé amuñu won ben moyen autorités de nous, de nous recevoir. Parce qu'au-delà du président de la République, c'est quelqu'un de chargé. Et nous ne sommes pas dans le prestige d'être reçus par le président de la République, ce pas préoccupant. Mais le problème aussi, moi, si ministère de la Santé, si li da nga war a woo ñëpp njabootee ñëpp surtout ku mel ni révocable du sax ay honneur la wala sac la mais ñàkkul ne am nañ xam-xam parce que bo leen gisé ñi composer révocable amul ben groupe Sénégal bu ko composer fi amul tidiane ma nga wan ma nga fa wa PDC ña nga fa wa wa parti au pouvoir ñi nga fa société civile yi ma nga fa ay xalé ñi nga fa ay scientifique yu melni ay professeur Seydi bari nañ fi ñi nga fa donc lolu moi je pense que ni lu amone solo la nga dooleel ko pas pour jox ñu xaliss mais dafa am no fo xamni mëno fa yegg parce que ñun dañ néwon président bi mu recevoir ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Idrissa Seck ak yaa naa maar jo waroon na leen jox mission yow Ousmane defal ma lii yow Idrissa defal ma lii way yow yaa naa maar COS M23 defal ma lii pour ñun solidarité bi ak participation citoyenne bi waroon na tambalé fofu mais malgré lolu amul parce que dara mutul on s'est dit duñu xaar donc moi je pense que ne le fait que jàppale wuñ ñu c'est un message fort qu'on lance aux jeunes que ni des fois bu leen xaar ku leen jox war ngeen mëna ici isin initier pour sen réew donte sen réew mo leen amee lépp. ci vaccination yi wala tam ñuy wax ci relâchement bi ñu gis ne que Sénégalais yëpp Euh, Covid jógee waaw dama koy waxoon sànq dama koy waxaat bu ma takkul masque contexte bi moo tax parce que dañ ci dëkk man hôpital laay liggéey salle bi exigé na ñëpp takk max am ay gel dañuy wax rek li ñu doon wax sànq mooy ne que dafa am ñoo xam ne ñooy jiitu liggéey bi muy euh, autorités yi ñoom seen i taxawaay dafay refléter di impacter ci société bi bu président fu mu dem taxasu takk masque am na ñoo xam ne ko gisee c'est une image positive dañ koy toppandoo bu ko gis nañ euh, l'exemple de xalif général sëñ Mountakha ak yeneen xalif yi dañ dañuy takk max seen i taalibe def suñu ministre yeeg yooyu gis ngeen meeting yi fi am mu jëm ci pouvoir comme opposition daje bi takkaloo bi jaxasoo bi loolu yëpp am fi mais askan wi bu ko gisee te mu bàyyi ko foog ne bi amul wala rayul man mii damaa tëdd l'hôpital ki njëkk dee ci corona dama ko daf ma faa fekk nit ñi liñ leen bëgg gëm loo amul beneen bi ci des mooy amuñu saafara amuñu ay téere ñuy takk contre cette maladie scientifiquement parlant ni ñu gëmee ne un plus un égale deux noonu la ñu gëmee ne vaccination bi alternative scientifique la en attendant d'avoir mieux donc comme que ñun duñu ay borom xam-xam man jànguma loolu ñu ko jàng ñoo fi ne nema lii wér na leer na professeur def na fi approche bu doy waar mu ne ku ñemee jël avion dem à dix kilomètres ci kaw mbaa ngay dugg oto daw cent cinquante kilomètres euh, ragaloo dee ragalee vaccination